ah ay waay bi aéroport waay ay waay bi aéroport bay sam ñooy jàmbaar waay billahi barki alquran ah oh ay jàmbaar waay wallahi sama xarit bi dafa feebar alxaaji Mansour loola dal <laughs> jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi ci aéroport Jidda wallahi alazim yàlla na yàlla may aéroport bu mel nii barki bi wala bu ko dàq mais na am na lu ma fi seetlu de mooy yar ak teggin ak respecté loi bi respecté koy waxee ti yu tali bi respecté yoon wi kenn du lekk ñemewu la lekk dara ba sànni ko ci mbedd kenn ñemewu la jël sa oto gaare ko neex du fu la neex nga yuuxoo du fu la neex ngay wax ñun géwél yu rëy làmmiñ yi sax buñ fi nekkee buñ yuuxoo ràllit lan ñuy def nee fi amul yuuxu ay waay ay de bu bëggee avancé dañuy yar ay seeni xale defaraat jikko yi waaye xoolal lii xoolal lii rek déggoo yuuxu déggoo càmbal càmbal déggoo dara tabarkàlla tabarkàlla billahi xoolal lii rek yàlla nañ ko yàlla defal ci barke yonent bi di ñaanal waa réew mi yëpp tabarakallahu li ñu doon ñaan fële ca màkkatal mu karrama yàlla ko yàlla nangu jox ñu ko ñu ñëpp ci barke alquranul karim alxaaj ngi nii ngi fii ci aéroport yi Jidda alxaaj Souleymane Ba maa ngi ñoo ngi fii ci aéroport Jidda ñëwagul seen xel ñoo nga xam ne fii tabarkalla jaamu yàlla rek moo fi nekk ngi nii ah, ah, ah, Pape Moussa Diop a ngi noonu ànd ak Abdou Aziz Mbaye fii ci aéroport Jidda ndeysaan ndeysaan ndeysaan saan ndeysaan ndeysaan waaw Pape Moussa maa ngi ni sant yàlla baax sama waa ji bagage yi jàll ci jàmm comme xaalis waaw boo ko jaay ñëw dara <laughs> waaw góore waay waaye sama xarit dafa feebar. ndeysaan ñëpp feebar. ah. loolu nga di. Alxaaj Mansour. <laughs> sa ay waay bi aéroport waay kañ leen ko yàlla may. mbay. waaye eh, aéroport bi wala ñu ko am. liggéey rek. def mooy yaraat sunuy xale. defaraat jikko yi. billahi barki Seydina Muhammad Muhammad.